jërëjëf euh, mbokk yi ñu ngi leen di bu baax di sant yàlla aloo Sénégal ak allo Saltigo Arona e, di koo xam ni Arona bu Sénégal Arona bu Afrique Arona bu monde bi sax laay wax waaye mbokk yi ku doon laajte faali ngooye gi su ma ko waxee mooy dawul wut si li nga xam ni moom mooy image déedéet ñun ñoo daw wut ko di koo xam ni bëri na fu baree bari foo xamante ne si loxoom jote na fa ñun ñooy fexe ba mën a yëkkati ko pour indi ko. parce que nekk na jëmm joo xam ni ku yàlla baaxal lu jëm ci wàllu xam-xam. mu nekk ndono ñu naan ko saltigo Arona tiin di ko xam ni waaye juróom bu góor ñëpp xam nañu ko moo daan ñaan yàlla suñ borom ba yàlla jëlee ko fi tey ma nga ci àjjana. biiteel yi papaam daan joxe. bépp feebar bu waay mësa am boo mësaan a jël biteel yooyu wér na ak feebar bu mën a doon saltigo Arona Tine dina ci ñëw mbokk yi kii moom mooy doomu Paa Tine di koo xam ni bëri na lu baree bare bari lu nekk ci moom ñun média ñoo am pas-pasu pour dimbali sénégalais yi akankay ndax nekkul loo xam ne lu mu bëgg la temps mayu ko ko fii ñuy wax ak yéen nii moment bii émission bi di daw téléphone am noppalul parce que mi ngi ci yeneen affaire kon kii dañ koy sant mun naax nit man dinaa ko sant ci turu Allô Sénégal ndax maa ko sonal li tax ma di ko sonal mooy jafe-jafe sénégalais yi nga xam ne am nañu ko mu am ñu ciy dimbali rawatina lu jëm ci wàllu nopp mais mbokk yi bala ñuy ñëw ak moom ci li nga xam ne mooy xam-xam dinañ ñëw ak yéen tuuti ci révélation yi nga xam ne war nañ ko waxtaan moom Seydina Lamine bi ci njëkk moom mooy révélation bi moom mooy gis ngeen li xew fan yi mooy wàllu tension bi fii mu toll élection législative yi jëm la 17 novembre ñi nga xam ne ñooy xëccoo commencé nañ dem sur le terrain mais dafa mel ni yëf yi am na lu ci xew mbokk yi bi ci topp moom mooy combat Modou Lo Siteu bul yàkkamti parce que combat bi nekk na jëmm joo xam ni xëy na fii muy toog am na lu bëri lu mu ciy xam mais pour ñit ñi mën cee jote rawatina lu jëm ci wàllu média ñun ñoo ko mën a fësal pour sénégalais yi mën ko xam di ko xam ni dinañ waxtaan moom ci diggante Modou Lo ak Siteu diggante tamit Modou ak Papis Papis xarañ Lo bi nga xam ne benn xale la boo xam ne mi ngi ànd ak Modou Lo yi bari moom ngeen gis si digg bi ak Modou mais combat bi daf ci am ay coow dil la wala lan la est-ce que Papis sori na Modou Lo ce que nekkul ay pion est-ce que Papis mi ngi sori Modou wala ay jege ñaaleem loolu xëy na sëñ bi am na lu ci xam waaye nag lu yoonam nekkul nekku ci mais am na ci loo xam ne dina ko leeral Sénégalais pour ñu xam ne làmb dafa xóot mais diggante Modou Lo ak Siteu combat bi am le 24 novembre. loolu bëri na ñu bëri ñum jaxase seen i xel chaque jour télévision yaa ngi wax loolu mbokk mii ngeen jàkkaar loolu dina ci am ay kaddu yum ci yëkkat yoo xam ne ku ko dégg di nga xam ne li muy wax xam na ko li ci des nag dinañ ñëw moom ci wàllu xam-xam wàllu révélation jafe-jafe yi sénégalais yi di dund muy saltiga Arona Tine mbokk yi bu leen yàkkamti li ñu naan dàllin kóor daj dëpp kaa ngi nii xam-xam ndono la laaj te kii papam mun naa wax ni toj na Sénégal toj na monde bi toj na àdduna ba yàlla jëlee ko fi tey ma nga ca àjjana bëri na ñu bari ñu daan feebar feebar bu waay mës a am waaye juróom bu góor boo ñëwee fii bu la joxee biteel bi mu wér allahu akbar ak feebar boo mës a am kon loolu yaakaar naa xam-xam day dañ ko jox na mu nuyu mbokk séeréer mi buñ naan saltige mbokk yi kii mooy le vrai saltige muy Arona waa waaw asalaamaaleykum mbokku Sénégal maa ngi leen di nuyu euh, di leen jaajëfal di nuyu waa Sénégal ñëpp. di leen ñaanal jàmm fu waaye mën a nekk ci Sénégal yal la yàlla defar jàmm élection yi nu jëgmal yal sunu borom def fi euh, jàmm ak salaam waaw. ñu bàyyi la nga nuyoog sa mbokku séeréer yi. waaw salaamaaleykum fogole séeréer mi xëy simnaa nuun euh, in jookaa nuun a jal in ñaana naa jàmm kiine anna ref kam adnan ne yasam roga cilong jam in heɗayo roog a fi kam saxre jam hmm. tool le vrai saltige maanaam lu ñu naan dret dret loo xam ni ci dret la nekk moo nekk nii mbokk yi le vrai saltige ngeen jàkkaar lool mais bala ñuy ñëw ci combat bi wala ci élection yi nga tudd léegi yaa ko tudd dinañ ñëw ci mbirum xam-xam parce que sañu laa jël te duñ la laaj ci loolu ndax sa waajur bala ñu ñëw ci mbirum rab wala seytaane ngelaw wala ngelaw wala jinne dinañ ñëw sa digganteeg sa waajur ci deux secondes parce que paa bi yàlla dogaloon ni ma nga ca àjjana yàlla na xippee ci àjjana bari na sénégalais yu bari yum dimbali ci mbirum handicapé bari na ñu bari ñu dox ñoo xam ne ginnaaw yàlla ak yonent bi ndogalam sa waajur moo tax feebar yu bari dañ na sa waajur moo taxoon ci biiteel boobu mu daan joxe mais sa diggante ak moom bi nga nekkee tout tànk ba yëf yi nga yor ko ak ci loo xam ne nanguloon na ko la ba dem bàyyeel ak bagage yi ndax ñaari mbal ko mënuñu bokk ci benn ñaari kuy mënuñu bokk benn mbal. waaw paa moom sama digganteeg moom dafa nekkoon euh, mbir mu yéeme boo xam ne dañ ko doon dund man ak moom muy baatin. boo xamoo boo xam ne doxoon na sama digganteeg moom mm-hmm. ñu doon waxtaan ci baatin moom a njëkk a nangul ne kii am na lu ko sunu boroom may moom paa bi ba bi ma bi ma nekkee bitim réew mm-hmm. ma xaw fa yàgg lool am benn bés mm-hmm. ma tëdd ba guddi sunu borom woon ma ni paa bi dafa doon dugg ci wanag bi mu daanu. ci moment bi nga nekkee bitim réew. moment boobu ñu ngi woon ci 5 ci guddi bi ma jógee woo sama rakk bu jigéen ci heure boobu mun ma yow heure bi nga woote nii moom yéeme na di ma ne ko ana paa bi mu ma paa baa ngi fi ma ne ko lu ko dal mu ma dara ma ne ko ah kon baax na ma tëddaat ma tëddaatee 7 heures mu woo ma téléphone mu ne ma paa bi de daa demal duggoon ci dus bu mu daanu foofu. yóbbu nañ ko hôpital. ñu génte affaire yi woote ci lañ la wax lii. laa ilaaha illallah. boo ko gisee euh, ma ne ko am lu ma ci yàlla wonaat ma ne ko feebaram boobu de du ci des bu mu jógee rek dafa ne naa ñëw bi ma ñëwee nag Sénégal mënuma euh, bul delluwaat mais maag moom ñu ngi ci biir kër gi te xam naa mama boobu matal na mu doonoon lu yéeme sama diggante ak moom. moo tax xam-xam dëgg xam-xam dëgg bu nekkee ci famille te muy dëgg wallahi day diis wallahi day diis lool euh, yi ñi ngi jéggalu nag sénégalais yi bu baax parce que nekkul loo xam ne lu mu bëgg la ñi ngi baalu àq sénégalais yi di ko jéggalu moom ci turu Allô Sénégal ndax nekkul loo xam ni lu muy sàkku la bëggu ko bëggul image papaam musul nangu téléphone tàkk waxuma la caméra bëgg nag dimbali sénégalais yi moo waral Allô Sénégal luqarti ko tey pour indi ko pour dimbali sénégalais yi bëri na ay borom xam-xam yoo xam ne yéen ngi leen di gis waaye kii dañ ko indi tey pour mu saafara jafe-jafe yi ndax lu ñu naan yëfam da koy def nga gis parce que bàyyam loolu la xamoon mais ci biir feebar yi sa papa daan faj yan feebar la woon parce que biteel bi li jaaxal nit ñi mooy daaw la dara ndox la daan am kese ak lam ca daan tudd mel ni yàlla la wéetaloon ci mbir mi ak feebar yi nga xam ne sa papa daan faj te musul nangu caméra tàkk. waaw góor gi moom ay mbiram euh, ñëpp la yemoon ñun ñi nekkoon ak moom ak kilifa yoo xam ne kenn ñemewu leen tudd moo leen doon faj faj na leen paa bi faj na koo xam ne nee nañ ko ñetti weer moo moo la tere nga dee. ñetti weer laa ñu jële ko bitim réew indi ko ba nii may wax yow mu ngi dund nit feebar na ba ñu ne ko kii amatun ci moom yaakaar mu dugg fii paa bi faj ko paa bi lu mu faj ci ay doomu aadama kenn xamul nañu toll loolu nag xam-xam boobu moo fi nekk fii ku fi ñëw ak feebar boo mën a indi boo fi boo fi ñëwee di nga tàqale ko moom. allahu akbar euh, rawatina li jëm ci mbirum noob danañ ci ñëw parce que sëy yu bari saltiga Arona Tine delloo na leen sëy yu tasoon yu bëri ah, loo xam ni information baa ngi law ci àdduna bi noob da koy liggéey ci trois jours wala mun la gën gaa néew un mois da ngay gis ni su may commencé liggéey mbir mi da ngay amee méthode bopp diggante couple yi nga xam ni bala ñuy ñëw ci feebar yi ah parce que dinañ ñëw ci rab seytaane jinne ak ngelaw. mais couple yi nopp yi ngay liggéey di ko liggéey ci tel ci foto moo jaaxal ñëpp ba ci koñ bi nga dëkk daf ñu jaaxal maanaam acier bi ngay jël jëmm nit ki léeg-léeg ñu wax la sax nga ne ma ma tuur may tàbb su ma ko tàbbalee géej ki may liggéey di nga gis ni dina woon na ma sama bopp mi ngi metti couple yu bari ndaw si nee na jëkkëram bàyyi na ko un an et demi mais waajaa ko topp comme xaj noob dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg vrai noob la ñu gis waaw xam nga boole nit ay ak nit moom loolu du wëñ bu ñuul wala wëñ bu weex wala wëñ bu xonq moo koy def déedéet loolu xam-xam dëgg koy def boole nit ñu ànd loolu moom su ma bañoon a ma ne Afrique bu mu daj loolu man maa ko fi maa ko fi man mais ci turu Allô Sénégal daf ci am benn conseil boo xam ne dañ ñu ko jox ñu ne daf ci am femme boo xam ne mi ngi Angleterre topp na ci waa ji pendant neuf mois. mais takkagu ko fu mu dem ñu naan ko lii laa lii laa mais nee na bi mu la xamee ba woola teguñ ci weer waa ji ñëw na ko Casamance laa jógee maa ngi lay baalo ak lii lañ ma defoon. parce que la nga tàbbal géej bi nga ko defee deful ay fan mu topp mu topp waaju ji topp ko comme xaj ku góor gi moo topp ndaw si comme xaj li ngay wax dafa am. waaw loolu moom ci leen dëkk euh, boole nit ak nit nit nit ñu ànd couple loolu xam-xam bu fi nekk la loo xam ne. xam-xam dëgg dëgg dëgg moom la te suñu koy liggéey man su may liggéey yooyu damay am lu ma neex parce que mooy tax xaalis bi duma yitteel mais lu may bëgg a dégg rek mooy li nga doon def day waa ji wax na ma lii ak lii moo chaque jour ñu ne ah foo ko jaar waaye daa fekk ñu jaar ko fu ñu ko war a jaar waaw loolu moom su ma la jaaree fii mënuma laa jàpp su ma la jaaree fii dama lay jàpp par force ngeen ànd kenn mais li ñu ci jaaxal mooy dé léeg-léeg sax yëf yi dikkal la nga ni soxlawuma tur photo bi rek laa soxla musuma gis loolu di liggéey nopp di laaj photo waaw léeg-léeg léeg-léeg nit damay dajeeg moom ci mbedd sax ma ne ko diw doomu diw ndaxte xam nga jëmm nit gi su ma ko gisee ba jàkkaarloog moom photo yooyu ah. ñoom ñaar loolu moom dama leen di boole pour ngeen àndaat loolu far force la ku ci nar a wax pour ñoom ñaar ñooñu texalu ko yaay am ak ñoom problème ñoom ñaar moom pik ak peel. léegi ñu ñëw ci feebar yi euh, Aliou mooy diggante seytaane ak rab ak jinne ak cey Arona noonu li gars yi naan messi mais xam-xam dëgg am na wallahi azim xam-xam boo ko amul dama nga seeti leen mais li ma jaaxal. ci li ma bëgg ñu ñëw mooy diggante li nga xam ni mooy diggante seytaane ak rab ak jinne ak ngelaw mais ki ci ñi njëkk yi mooy koo xam ni bëtu guddi daf ko jàpp bëtu guddi ak lan la ñuy tuddee bëtu guddi. waaw xam nga seytaane moom lu am la am gu wër ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey façon liggéey bi xam nañu ko. jinne tamit lu am la bët buy gaañ am na rab euh, am na am na ngelaw jinne nag ñooñu ñun ñooy dund ak ñoom te ñoom ñooñu ëpp ñoom sax dañuy jëflanteeg ñun jinne day jëflanteeg doomu aadama mais dafa am loo xam ne ñoom dañ ko tele dafa am loo xam ne ñoom mënuñu ko loolu doomu aadama la ko sunu borom jox muy leer bi nga xam ne am na ci baynal yedd loxo maanaam nga ngëb bàyyi loolu sunu borom mën na leen ko ñoom mënuñu loolu mm-hmm. nii la seen loxo yi nii la leen sunu borom bindee mënuñu banque mooy waru ñoom du ñu mën a rendi mooy waral ñu leen di rendil ñoom nag amuñu amuñu distance amuñu espace seen xel bu nekkoon tey jii cees mën na faa daanu ci saasi sunu borom di leen a supprimer supprimer la distance euh, xam nga nit sunu borom da ko tënk mm-hmm. parce que tey fii ma nekk. fi may fanaan sama ci kaw mën naa ne am na benn télé bu fa nekk su ma xalaatee mu ngi mel ni maa ngi koy gis xel bi mooy dem mais sunu borom dafay dëj jëmm ji du mën a dem mais bu dee ñoom xel bi bu demee rek jëmm ji mën naa dem bët nag day am tooke bu muy sànni kooku bëri na sax nit ñoo xam ne euh, day mel nu ko neex xëy rek daanu feebar dee fekk na tooke bët moo ko dugg te tooke boobu moo gën a garaaw tooke jaan tooke bi nga xam ne bët da koy sànni kooku am na ci nit ñi Aliou laa ilaha illallah rab nag loolu takkandeeru doomu aadama la sunu boroom moo ñaaleeg doomu aadama la mm-hmm. amul kuy dund ci àdduna te amuloo ko am na yoo xam ne mu ngi si nit ki day nelaw kooku du yeewu ñooñu nag day fekk dañuy nekk nit ñoo xam ne seen jaamu yàlla dafay metti ba rab boobu nekk ci ñoom day nekk ci seen suufu yaram kooku mënatul amatul doole pour génn fenn mm-hmm. jëm ji mooy kona euh, euh, kona konaane rab euh, rab bi moo koy conditionné jëmm ji mm-hmm. kooku nag bés boo tolloo foofu am nga sens am ñoo xam ne nag rab bu ñu àndal moo leen di xeex boo waroon jaar fii am jàmm dina fexe ba nga jaar fee am fa histoire ba sa deret génn te mu ngi si yow moo lay def loolu kon nga xam ne rab lu doy la am ñoo xam ne nag sunu borom boole na leen ak zaaru rab yooyu mais fu leen di jëriñ ak lu leen di yokk kese la leen di euh, xiir mën nañ ànd man nga ànd yow ak moom nga jaar nii moom mu jaar nii foofu mu jaar mu for fa xaalis foofu mu jaar oto mbëkk la foofu laa mu jaar nii nga jaar nii nga xëy war a xëy moo tax nit ki war da nga war a taggat sa rab lu la yàlla booleel ba mu juboo ak yow ba ba xam ne fu mu lay yóbbu fu lay jëriñ lay doon mais Aroune dafa am lu ñu jaaxal zone bi nga dëkkee waxuma jungaan parce que jungaan mooy euh, cosaan ba ca Jobaas mais euh, zone bi nga nekkee lu bëri lu ñu jaaxal mooy lu bari da nga koy wax nit ñi bu ñu xëyee gis ko comme li ngeen di gisee ci nawet bi di gis lii xew lu ci bëri lan la lan moo lay dee parce que da ngay yeew rek gis dara rek wax ko xale yi rek ñu mu am. ilaahi waaw xam nga xam-xam yooyu moom du dañ ci àdduna mukk bu bu dañee rek euh, sunu borom day tukkal àddunaam foofu am nit ñoo xam ne da leen di won won gu wër won gu wër waaw loolu lu nekk la ci doomu aadama xam nga nit ñi seeni ruux dañu ëppante doole te am doole ga sa ruux gi di am doole loolu du nit ki moo koy euh, def hmm. suñu boroom moo koy def parce que xam nga nit bu demee bay nelaw ba yaramam sedd lu ñuy wax ruuxam rawaxaanam day génn ci yaramam bu génnee day am ay pays yu buy dem dëgg foofu dañ koy tuddee alamul ayib mooy pays xam-xam foofu nag bu fa demee dafay jëlee xibaar bu fa jëlee xibaar loolu bu fa demee eggee foofu lépp luy xew ci àdduna bi wala ci nit ñi ci réew bi nga nekk ci dëkk bi nga nekk ci kër gi nga nekk foofu lañ koy dogale ci réunion yooyu moom nag dafay teew am na ruu yoo xam ne du ñu am doole pour egg foofu am na ñuy ruu yoo xam ne dañuy ñëw nettali leen am yoo xam ne dañuy egg nag ba jeetaay googu mm-hmm. fekkee waxtaan googu yu bari yuy xew euh, dañ leen koy xibaar foofu bu ñëwee nag da koy dénk yuur boo yeewee rek mu arrêté ko moo tax foofu boo fa jëlee xibaar hmm. day nekk xibaar bu wër te wóor bu wër waaw. ok euh, ñu gàttal euh, koo xam ni euh, tamit mbokk yi tey rek ngeen dégg-dégg xam-xam am na c'est-à-dire làmbatu bi dafa war a jeex Sénégal xam-xam doonoo la loo ci jàng lu néew lay doon wala boo ko jàngee it ki doon yaakaar naa boo ñëwee doo ko jàngal yàlla mooy maye xam-xam bëri na Sénégal ñii bu boo naan ay saltige lañ la vrai saltige ngi nii ñoom nag neexu leen waaye nag te lu leen lu leen lépp lu leen ci naqari ñu ngi koy rocc benn par benn ñoom ñi ku ñuy dégg nga naan Celtic nga ñoom fii lay toog dina ci ñëw sax ak moom euh, ci li ñuy ñëw euh, moom mooy koo xam ni alalam dafa yàqu lam daan am amatu ko mu jàpp ni dafa am luñ ko def maanaam mi ngi doon am wërsëg mais lu bari ñëwatul bu saa yi doon ñëw juróom sax ñëwatu waaw xam nga yooyu nag euh, dafa bari lu koy waral. Hmm. am ba amato léegi-léegi nag am na nit ki yëf yi muy def da koy da koy waral waaw gis nga lu ñuy tuddee mballu fooye sa bopp fooye sa bopp muy góor di jigéen ku koy def boo amoon ay milliardaires dootu ko am loolu même su fekkee rab daf la koy defloo même bu dee rab moo la koy defloo loolu maara day taale nga moy ak jigéen sax moo ko tane lu lu doy waar a ngi noonu am na ñoo xam ne nag am-am bi bu ñu amoon dafa amoon cosaan bu mu jógee te lu leen mayoon ci ñoom la nekk mooy comme li ma la doon wax la rek mooy lu ñu àndal. Mm-hmm. mais loolu day dama dem ba ñoom dañuy fàtte lu ñu àndal dootoo génne sarax yu doy. Mm-hmm. dootoo dootoo tuur deret te yàlla tax. Mm-hmm. dootoo togg ay ñam ñam pour joxe jànni ay kilifa. yow loolu man nga dajeeg loo xam ne ah lépp loo amoon man na rus aussi am na lu koy waral tamit muy toog ba ngay fëgg sa dënn kooku boo ko defee rek sunu borom mën na rëcc lu muy war parce que lu ñu mën a toll am na loo xam ne sunu borom moo ko moomal boppam. maanaam bew. laa day day waral loolu da koy waral. kon balaa ñuy ñëw ci Lamine ci euh, dañ maa def dara euh, dañ may xeex wala nangam da njëkk ñëw ci lii nga xam ne mooy indi cause yi ba pare ñu soog ñëw ci léegi. ak jàpp am am jàpp jigéen ñi di fooy rek xooloo jabaru jàmbur xooloo yeeg kii. Mm-hmm. léeg-léeg nga daje koo xam ne góor yàlla boo xam ne mu ngi ci néegam di dëkk sunu borom ay loxoom. te dooleem tollul noonu nga nax ko ba tëdd ak soxnaam ngir sa am-am sunu boroom def la def ju doy waar. laa ilaha illallah lii lan la. dootu am ba mukk bay la bi diine abadan am na ci loo xam ne nag comme ñooñu moom dañ lay jógal liggéey la carrément dooto am. waaw njaber am na loo xam ne buñ la ko defee. Hmm. am am moom tàggoo nga ak moom dootu am mukk ba ilaa yow bi diin loolu bu dee ñun ñi dañuy dem ba fekk dañuy dem xool garab boo xam ne dafa jékki-jékki daanu yéen la ñëw xool garab goo xam ne dafa jékki saa yi daanu waaw ñoo la ko def moo daaneel boppam kenn daanulu ko daa am li nga ciy jële ak benn rab liggéey boobu buñ la ko defee li ngay lekk sax da koy ñaan loolu nag foo nga am foo nga jóg dëgg pour nga mën ko dundi foo nga jóg dëgg dëgg dëgg mais lu ciy pexe. ciy pexe mooy. waaw xam nga. ñu ko xam ni bëgg na loolu dañ na ko nan lay def. waaw xam nga ñaan moom. dafa yàgg si àdduna. xam nga avant alxuraan di wàcc avant yonente bi di wàcc nit ñi daan nañ feebar di faju jinne yi daan nañ attaqué nit ñi ñu leen di faj jigéen ñi daan nañ am ay doom ci hôpital yi taxawul woon kon xam-xam yàgg na si àdduna surtout xam-xam yi reen yi man damay faj ñoo xam ne bitim réew lañ jóge ay tubaab ñoo xam ne yaakaar na bu dee médecine foofu la foofu nga ñëw ma faj la te doo xam ci nan laa la fajee te ni ma la fajee xam naa ko xam-xam gu ñuul sénégalais yi bu nu ko xamoon dëgg hôpital yu bëri nañ tëj gas ay reen xam reen bii lii lay faj baxal ko jox ko nit mu naan ko góom bi nga xam ne nekkoon na ci xolam mu raxas ko mu set mu wool ko mu wow mu wër fajee naa loolu nit te ay reen la. laa ilaaha illallaah cancer nga dellu ci tubaab yu ne la yow foo fajoo ba ñu ne da di jaral dañuy ñëw def fi pour xool ci lan ñëw di seet kii kooku kan nu mu fajee feebar boobu bu ñu ñëw fii. alhamdulilah waaye moom la daan faj allahu akbar. oh. waaw ay waay xam-xam am na waay. muy njaber ñëw njaber. kon sunguf ak reen il faut nit ku xam koo xam lan mooy faj. c'est très important. suguf ak ren ba ci walu jëflante yu ñu jëflante ci àdduna walu am-am ak ñàkk. waaw que loolu euh, bëggoon naa ñu taxaw ñu mbokk yi bu leen yàkkamti euh, dinañ tëj émission bi parce que lu neex lu doy waaye euh, bala ñu koy tëj dinañ ñëw moom ci combat bi Modou Lo ak Siteu. diggante Modou Lo tamit ak Papis parce que booyu Modou la dinañ ñëw tamit ci moment bi nga xam ne ñu ngi jëm ci élection yi parce que moom mii am na liggéey bu doy waar bu mu ciy liggéey moo tax ma ne bu leen yàkkamti ndax xam-xam géej jigéen bu tamit boo xam ni euh, mënaguloo sëy dana ci ñëw loolu moom gën gaa ngi tege sëy Arona mais li ma bëggoon ñu ñëw mooy wax nga ko parce que koo xam ni fii may wax ak yow mi ngi am yàlla nga koy suturaal mais xaalisam du taxaw ci loxoom mun na yor léegi 1000 euros wala 500000. wala 2 millions wala mille bu subaa mu lebi dépense. waaw xam nga euh, loolu day am mais bu dee ñun dafay am xam-xam yoo xam ne maam yi ñoo ko fi bàyyi woon euh, lu yàggal euh, doon nañ ko jële boo demee fekk kuy tay cere suñu maay bu doon tay cere wala maire yi mooy sagar googu nga xam ne day nekk diggante inde gi ak cin li kooku dañ koy jël am luñ ci def boole kooku benn sunguf kooku buñ la ko joxee ba nga raxasu ko sa xaalis moom fulla ak fayda rek moo ko fay jële fulla ak fayda moo koy jële morso bi nekk ci diggante cin li ak inde bi laa kooku ay mbir yu doy doy waar waaw xas mais nag léeg-léeg ñu defal ko nit mu jaare fa nay defar nañ ko ay nit ay <laughs> Ah, Lamine loolu <laughs> léegi nga defal ko nit mu jaaree fan nay ah bu ñuy laaj jàkk ji àddiya du génne. génne ay soxnaam sax dañuy ñëw di di wax kii kenn xamul lu ko dal te moom dootul génn day jàll jàll dajale dajale ba moom ci boppam sax du xam lu ma koy doyee waaw moo tax waaw loolu day am luy euh, jox nit am-am ci àdduna. Hmm. dafa am loolu lu lu am la. gis nga am na sunguf yoo xam ne ay garab la boo xam ne boo xoolee danga koy dem wuti ci àll ba gis nga nit tey jii bu demoon ci neefare yi mu sotee mu sotee ko ay neefare xesew xun mbooloo ba mu jub si ñu tasaaroo mais nit tey jii bu demoon solu ba rafet xeeñ lu neex parfo yu neex yor xaalis mbooloo bu mu jege rek dañ koy gis ah ñëwal toog am na sunguf yoo xam ne boo ko laalee seeram nit ñi am na rab yu ñu àndal rab nit ñëpp am rab googu foo jublu rek rab yëpp lay bëgg da gis nit ñi yëkkati xaalis sax di la ko jox ndax kontaan ci yow parce que lu mu lu ànd ak moom moom doo la bëgg parce que li nga diwoo doon la lu muy noyyi loo xam ne luy neex la si xolam te yow xamuloo ko te yow xamuloo ko moo tax it am na yenni sunguf yoo xam ne boo laalee tamit boo moytul da ngay naan din ni lan laa leen def dañ lay bañ parce que xet bu sa yaram di dégager seen rab rabu doomu aadama yi bëgguñu ko te yow xamuloo ko fole nit ñi tool tey jii yow euh, boo amoon euh, bitik kii am bitik yow ngay teg musique kii di teg alxuraan yow mi di teg musique yow yaa koy ëppale client lu tax loolu nit ñu bëri ñuy dox dafa am ay rab yu leen coloniser te rab yooyu bugguñu alxuraan bu ñu jegee alxuraan gi rek da leen di sonal fu musique bi di jollee moom foofu la ñuy dugg ne waa ngi nii moo tax àdduna kenn xamu ko. kenn xamul lii. kenn xamu ko. mais nag euh, man dama ko mujj faaw man da musuma gis lii musuma jëlum sëriñ faaw waaye musuma dégg xam-xam bu mel ne mus ba ma gëj laa xam-xam am na Aliou euh, mbokk yi nag dina am message bi ñu jox le 22 décembre am na nebedaay boo xam ne mi ngi am ca Espagne chaque année la numéro yi war a génn sëñ sëñ bi xam na ko man maa leen jox loolu dégg ngeen waaye nag nee na du ko jox kenn dafay yoo ko beneen bi koñ bi yaa ngi koy toj. xale yi di jouer wan xibet ci match yi championnat yi barki démb Ndiaye kenn xalaatu woon Barça doo Real fii nga toog te li ma jaaxal mooy information bi ñu jot mooy da ngay jël benn feuille buñ équipe bi ñaari équipe yi wëndeel ko sa bopp trois fois sànni ko xam score bi exact xam équipe bi gagné. koñ baa ngi toj boo yu bëri tàggoo nañoo ñàkk ndax seen nga baal ma nag ak wan euh, euro million bi am chaque semaine bitim réew yaa ngi koy toj nabedaay bi am le 22 décembre. xam nga numéro yi war a génn mais je pense que da nga ni foog ñu fay la. dafa bëgg lu yomb de. bëgg am ay millions na nangoo génn xaalis. waaw xam nga am na seet yoo xam ne il faut nga dénk ko ngelaw ngelaw gi walla muy xaqiiqa dañuy wax xaqiiqa mooy dëgg gi loolu dafay am tur yoo xam ne moom nga koy dénk boo ko sànnee nag boobu amatoo ci yoon. amul lépp lu sunu borom bind loo xam ne caaxaan la bu dee ngelaw bi nag day nekk euh, euh, bay na la xarab ci combat lay nekk moo koy orienté ba mais wiri wiri dëgg gi la lay indil kii mooy daan boo ko indi rek loolu aussi am na yeneen seet yu koy seet moo tax moom loolu foofu loolu dañ koy xam loolu moom. te li ma jaaxal loo xam ni le 22 la war a am mais xam nga numéro yi war a génn. numéro yi ñu war a tiré ca ca Espagne xam nga ko fi nga toog ci Sénégal. ah yow xam nga ci dara. daaw daaw joxe woon nañ ko fi. yu war a génne xam nañ ko xam ko wër a wër a wër a wër amul match buy daw taxaw ma kan mooy gagné te ñaata bii la. laa ilaha illallah. mi ngi toj koñ bi fi ma ne booy ma ah. waaw xam nga dara ñoom loolu la yàlla mais nag <laughs> xam nga ñoom dañuy fay dañ lay jox score nga fay loolu moom dañ da ngay fay duñ lay jox moom du mooy. par force da ngay gagné kenn mënuñu dara. d'accord kon nag mbokk yi message mooy bëggul ci focus parce que bëggu ko woon waaye li ñu wax mooy le 22 décembre incha allah nawedaay bi am ca Espagne. xam na numéro yi war a génn yàlla wan na ko ko <laughs> waaye xam naa ni moom nee na ku ci bëgg a jouer pour mu jox la numéro yi soo ko bëggee xam da nga koy woo mu wax la ñaata la loolu moom amul ma dem te ñëw wan yi nga xam ne mi ngi am euro million yi am par semaine bitim réew yaakaar naa ku ko ci wooy dina ci jëflante yow focus ca la ñuy yem bref léegi ci li ñuy ñëw mooy pour tëj émission bi mooy lan moo la booleeg bant bi ñu soog a ñëw ci combat bi ñëw ci élection yi ñu war a ñëw ba beneen yoon ndax nag xam-xam géej la war nañ waxtaan yow ci musóoru mu may ñu ñàkk seenu alal am na yu bëree bëri yoo xamante ni si sa papa yoroon na ko secret baa ngi ci yow waaye xajul ci émission bi bii façon seet bi ngay seet it seetu bi boole la ak leket bi xajul ci émission bi mais sa digganteeg bant bi lan la ñu soog ñëw ci combat bi. bant bi moom euh, dafa bokk ci lu ma gën a fonk ci. sama doonu xam-xam du lu ma doonu ci bàyyi kii kii xam euh, ci histoire laa ko jotee bant bi dama tëddoon ba guddi am lu ma tiim mu ne ma aarona ba tiit xaw naa tiit sax parce que kuy wax gisoo ko mu ne ma boo demee sa toolu baay ci wetu ndeyjoor am na garab bu fa nekk garab boobu am na tan bu fa nekk tan ba am na fa téeméeri at daa màggat mais fii mu nekk nii xiif na waaye boo demee dangay wut béy bu xonq béy bu ñuul maa ngi juum boo ñëwee ba ci suufu xorondom yi nga rëndi ko foofu tan bi dina wàcc bu wàccee di lekk nga yéeg ci kaw doo fa fekk yaa ko moom bu bët setee ma dem jënd benn boy bu ñuul yóbbu ko foofu rendi ko dama ko rendi rek tan bi wàcc bu mu wàccee ci laa yéeg ci kaw fekk fa bant bi amoon na lu mu àndal nag bant bi bu ñu xesee xesee nootu timis allahu akbar amul lenn luy xew ci biir Sénégal bu muy daj te du ko xam laa ilaha illallah ah te itam yenn combat yi sax yenn fu ma jëm su ma ko fa yóbboo jàmbaarloog yow ba wàccul ci suuf bu dee mbirum suuf boo toogul ci suuf du yàgg maara day taal dañ lay suuli waaw te it su ma ko njëganaayoo lu ma bëgg a xam ci nit dinaa ko xam am naa ci yeneen soxla yoo xam ne nag daf ma koy jëriñ. allahu akbar mbokk yi. ay ca ma ngoog euh, bu ñu ko mënoon traduire nag Lamine ci français wala ci anglais dina baax parce que talibé yu bëri ñu ngi ay États-Unis parce que li tax may wax loolu mooy benn bi ci njëkk mooy lu jëm ci wàllum kaso euh, xajul ci émission bi ñi nga xam ni seen doom yi dañuy naan wala ñuy mooy mandi wala ñuy tux lu bon wala jël yoon wu bon wi am na secret yum mu koy dindee ci meewu liir loolu duñ ko xajul ci émission bi euh, ki te dugg kaso ñett fan da lay génne avant ngay dugg am na loo xam ne bu la ko joxee boo takkee doo dugg juróom ñaari personne lay aar xajul ci émission bi boo ko dégloo rek boo wootee incha allah mën na la ci dimbali euh, benn question rek ñu ñëw ci làmb ji Lamine nga baal ma euh, maa ngi jéggalu sénégalais yi nag parce que nit la boo xam ni bëggul lii lii bëggu ko li muy waxee ngeen xam ni bëggu ci dara parce que papaam daawu ko def xam-xam doonoo la mais benn question mooy jigéen boo xam ne mel na ni mu war a mel mais mënta dugg ci sëy bu ñu fexe ba sëy am na ñoo xam ni ñu ngi ci sëy mais seen yi amuñu jàmm. loolu moom am spécial loo xam ne. pour loolu la am na loo xam ne nag rab koy def rab waaw mais am na loo xam ne nag maanaam <laughs> soxna si boppam jikkoom mooy rabam. laa ilaha kooku nag dinañ fexe ba am na sarax yoo xam ne bu ñu la ko génnalee peut-être euh, nga mën a contrôler sa bopp dafa am na loo xam ne nag moom mu ngi fi loolu moom bu ñu la ko joxee ak li nga koy booleel loolu moom. ak noo mën a mel nag ak lu la mën a tey mm. ñaari weer moom di nga am borom kër. allahu akbar ak noo mën a mel. noo mën a far force la même bu dee sa jikkoy bopp baaxul itam da nga ciy dugg génnaat ci mais far force di loolu takk takk moom di ko def. tët tët mais am na loo xam ne nit ki ak jikkoom. nit ki ak jikkoom ak melokaanam. loolu moom yeneen mbir la. loolu dañuy jëm wax xool ak moom ci ni nga mel. d'accord euh, tuddul dara ci lu yem ci wàllu jaaroo may wax na ko ci morceau boobu nga xam ne ci diggante indi ak lay nekk ak Chine léegi euh, balaa combat bi élection yi gis nga fan yi ni mu mel tension bi euh, dem nañ ci élection législative le 17 novembre la mais campagne bi démarré na kàddu yi commencé naa jub loolu. bokkoon na ci tamit sa papa am na ñoo xam ne daan la leen ñaanal ci way xëccoo rawatina yenn njiiti réew yi nga xam ne daamu Abdou Diouf la woon wax dëgg yàlla ba tey secret boobu nekk ci yow mu bari ay ponkol yoo xam ne yaa leen samp fii ay directeur de société ñoo ne ñu ngi yor ay suuf di jaay ñoo xam ne dañuy business na ñu bari ñoo xam ne yaa leen samp fii wax dëgg yàlla ñu ngi ñëw ci kër gi waaye euh, gis nga élection yi ni mel barki démb gis nga démb su ma juumul Lamine kër Khalifa Sall bi gis nga ni ko def taal nañ ko mooy siège ba euh, sàmm sa kàddu euh, nan nga gisee xëccoo gi ak yëf yi tamit fan la nar a mujj. waaye élection yi moom man waxoon naa ci benn jour mooy euh, avant lii di xew mais doon na élection yu lëndëma lëndëma bari coow euh, bu nu mënoon ñu dal te sàkk ci euh, yu lëndëm. réaction yu lëndëm parce que suñu borom woon na moom gis naa ay convois yoo xam ne daal fu ñu dugg daal foofu lañu lëndëm na trop daal lëndëm na trop trop trop mënuma ci pour nga gis ci nit sax problème loolu nag am na yoo xam ne doo xam exactement lan la mais da xam ne lii du lu lu baax. daan na ci ndaw ñu moytu. waaw nañ moytu. waaw ñu gis arrestation yi ambendoo yi tey finalement bàyyiwuñu ko euh, Bougane la 30 la war a taxaw ca Mbàkke Tamba euh, yooyu yëpp. waaw xam nga nguur dafa nekk loo xam ne ñu ñun ñu koy def ci àdduna ñu ngi ko coppee ci ci kaw ci nguuru sunu borom yàlla ak malaaka foofu la xikma nguur jóge moo tax nguur élection deret la àndal ay bakkan ak fitna loolu mënta ñàkk noonu la mel c'est naturel loo xam ne ndogalu sunu boroom la ci ñoom mais euh, ñu dal rek ñu dal te gën a moytu ku nekk gën a euh, respecter sa bopp voilà ak sa dignité. ñu gis ni muccug Pastef nan nga gisee situation yi par rapport ak ni élection yi mel nii gars yi nee nañu du yow du man mais gars yi nee nañu caravane yi Sonko daan def gis nañu léegi dafa wàññeeku mbooloo mi ko daan topp ñi commencé di wàññeeku soit lan mooy problème bi ndax sénégalais am na olof Njaay naan nit ki doo ko nax benn yoon soo ko naxee benn yoon du ñaar wala boog ak yàkkamti da cee am nguur gu def 7 mois nga bëgg ko teg pression. xam nga euh, ndara xëyul sotti. suñu woroom sax moom mi nga xam ne mooy kun fayakun waaw moom mi nga xam ne moom moom wax ci alquran innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu lahu kun fayakun waaw comme moom mi nga xam ne bu neexoon mu ne kun fayakun lu ko lu mu bëgg def rek mu def ko léegi mu am léegi lépp baax xa réew bi baax xaalis am ñëpp mais defu ko adduna bi sax tabaxu ko ci benn fan te bu ko neexoon mu ne ko kun fayakun mu nekk da ko tabax étape par étape par étape kon ñu may leen taar rek xool waaw bi dafa dafa teel te nguur bi ngay ñëw xam boo ñëwee dugg ci benn néeg fekk ñu tasaaroo wala rasale wala balaa ngay man na nan xaar tuuti daal mais dernière question est-ce que nekkul tamit li ñu jàpp datu élection yi dafa dafa dafa gaaw élection législative salaamaaleykum rek six mois élection waaw gaaw na gaaw na gaaw na waaye xëy na euh, ñoom ay nitu jàng lañ intellectuel lañ xam nañ xool nañ def nañ éthique ba xam ne peut-être ñu organiser élection moment gi mooy luy sauver réew mi peut-être loolu moo tax ñu def ko. mbokk yi mu nekkoon saltigo Arondetine dernière question mbokk yi moo li Sénégalais yëpp di xaar muy combat bi euh, diggante ki nga xam ni moom mooy euh, Modou Lo ak Siteu mais avant Siteu dañuy njëkkee ci Papis Papis xarañ Lo benn xale la boo xam ni day ànd ak Modou Lo mun nañu wax ni Modou moo ko mag waaye diggante bi muy ànd ak Modou Lo yàgg na yàggul parce que Modou Lo bi muy nekk Parcelles Assainies doon ànd ak ñoom conko si ñoom Malick Métrage ñoom Cheikh Super Jamono boobu fekk na Papis commencé gu ko fréquenté. pour ñu xam ok mais si diggante bi nag takk na Modou di ànd ak moom ba mujj gi su Modou Lo di bëre moom mooy mujjee génn ci géew bi te nga xam lool yow tegtatu làmb nga xam ko di doomi séeréer yàgg ñaan ci wàllu làmb moment bii nag stratégie la ñuy wax wala est-ce que Papis yomb na bàyyi Modou Lo ànd ak moom rek benn combat ñor mu bàyyi si xel nangu coow li bari na ci. waaw xam man dama jàpp ne ñoom ñaar euh, réeroowuñu euh, parce que nit koo xam ne yaag moom xamante ngeen ba buy bëre booy bëre moom mooy mujj ci say cumukaay mm-hmm. te nga am sëriñ yu wërta wër yoo xam ne lu ñu lay wax xam nañ ko yaakaar naa loolu réeru amul seen diggante est-ce que waaw mën na nekk xaw ma lan la mais dama jàpp naa réeroo amul seen diggante mais for nañ ci buy béy kenn sax yaa ngi am ay information ko booy papis du jug parki nu Modou Lo fële ci côté armée lu Yoff ya réeroo amul. réeroo amul waaw waaw waaw eh, mais doomi séeréer nga nekk fi nga xam ne mooy jungaan Modou Lo ak Siteu combat bi le 24 la coow li bari na mais euh, temps yi la passé dañ la seetaan ci benn télévision bu mag nga ni bëri na lu nit di gis te alors que yëf yi mun na changer en tout moment ba jour làmb waaw kenn mënu laa waaw loolu day am waxoon naa ko ci benn combat. Euh, ba dernière minute bu ñu taxawee si laay sooga ne ma leen kii mooy daanu te moo amoon moo lamb ji moo ko yore woon ci loxoom victoire bi ba jël minute moom ci la ñàkk làmb ji mais lamb ji moom xam naa kuy daan di xam gu wër waaw mais nag comme que aussi am na ñoo xam ne man yu bari duma ci bëgg dugg man. la ilaha illallah du ma di way daan man du ma dugg ci yooyu parce que ñoom ñëpp damay jokkoo ak ñoom damay jokkoo ñu bëri sax seen kilifa ñoo xam ne kon yooyu du jëli bi dafa leer nañ ci yow. waaw am nee nga ci suuf avant émission nee nga dama ko gis quatre fois. waaw quatre fois. kooku moom moom moom moom mooy mooy daan loolu amul amul werante par force la loolu la yàlla dogal yàlla laa ko dogal waaw. mais kan la moom du ko wax. do da ngay bañ a yàqal promoteur bi wala da ngay bañ a yàq beneen ak am ngay gisee nawet wala liy xew. waaw bant di la woon noonu nga gisee man boo xam nga nit kuy préparé ay combat mu ay weeri weer nga ñëw nii ne ko yaay daanu loolu musiba la loolu du ko duma ko wax déedéet wax loolu. mbokk yi dañ ciy teg kot ñu tàggoo euh, lan ngay tàggu waa réew mi ak lan ngay ñaanal xale yi surtout Allô Sénégal ak lan ngay ñaanal. ñi nga xam ni ñi ngi nekk ci réew mi ñi ngi xëcc ñi ñi am nañ ay yite comme ni ko sa papa daan defee sarax yi surtout maa njariñu sarax njariñu sarax sax waxtaanuñ ci ndax xam bi nga duggoon dafa xóot xóot koo xam ni man dem naa sax man ba fàtte man ndax man ndax yëf yi ma bu ma toogee moom tàggoog sama sago njariñu sarax yi lan ngay baaxee waa réew mi ñaanal waa réew mi ñu tëj waaw ñun ñëpp mooy ñu dellu ci cosaanu àdduna cosaanu àdduna mooy euh, ngor jom fulla ak fayda nangoo liggéey sonn yërmande buy dox suñu diggante ñun ñëpp noonu la suñu mag ñu baax ñi ak saxaaba yeeg ñëpp loolu lañ doon dund ñu sax si loolu yërmande buy dox suñu diggante ñun ñëpp kenn ku ne nangoo sonn ngir li nga li la jëriñ nga seexlu alalu jàmbur ci lu dul yoon bañ a kar kenn nangu alalam bañ ko dóor yooyu nit ku war a am ab njaboot du def yooyu waaw ñu gën a fonk suñu bopp am dignité boo xam ne day nekk suñun liggéey rek ngir lu ñu dundee waaw di ñaanal ñëpp jàmm. liggéey rek ngir ñu dundee numéro téléphone yu mbokk moo nekk noonu saltige Arona Tine 77 588 69 09 77 640 08 29. ñu bamtuwaat ko 77 588 69 09 77 640 08 29 soo wootee jotuloo bàyyil message WhatsApp incha allah jërë ngeen jëf merci beaucoup.